jërë ngeen jëf yéen ñi tàmmu dakarnet.com n'oubliez pas de vous abonner pour que ngeen mën di jot suñuy video saa su nekk fële ca Touba di garage bu Touba xeex bu métti métti moo fa am ci diggante chauffeur ak transporteur yi li ko waral nag dafa am ñu ñëw di laaj ci xaalis boo xam ne moo nekk ci keesu regroupement de chauffeurs et transporteurs de Touba neen nañ leen jox seen wàll ndax ñoom ay chauffeur lañ te jamono ji ñu ngi dund ñàkk bu tara tara tar ndax seen liggéey doxatul li tax seen liggéey doxatul nag mooy depuis bi ñu instauré couvre-feu bi ak état d'urgence ñoom mënatuñoo am dara liggéeyatuñ dañoo toog di xoole ba ñenn ci ñoom sax léegoo léegi dañuy dem di yalwaani luñ dépensoo kon lii nga xam ne mooy xaalis bi nañ ko toj jox leen ci seeni wàll waaye nag bi ñu ñëwee di laaj xaalis boobu noonu dañ fa fekk kii di Idi nga xam ne jamono ji mooy le président des chauffeurs transporteur bu Touba moom nee na loolu du ci dal xaalis bi kenn du ko génnee ndax jotagul nee na nag ñii li tax ñu ñëw di laaj xaalis bi du dara lu dul dañoo bëgg a xajamal ndax ñii mooy ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci beneen camp jamono ji ñuy def élection di fal président groupement des chauffeurs et transporteurs de Touba jamono ji nag mu ne ñoom xajamal kese moo leen tax a jóg moo tax ñu ñëw di laaj xaalis waaye du dara kii di Modou mbay nag ak Mortala Gaye nee nañ ñoom loolu yëpp ay waxi kasaw-kasaw la ndax ñoo ñëwoon rek di laaj xaalis bi waaye kii di Idika ak ay gaayam ñoo génne seeni jaase ak seeni fetal seeni paaka ak seeni xeer di leen ko sànni indi fa coow lu métti metti ba sax gaañ nañ kenn ci ñoom maam Cheikh Diop nag bokk ci ñoom nee na kii di Idi Ka sax moo jël fetal jox ko doomam donc coow li ñoom ñoo ko indi kii di Idi Ka nag moom nekk le actuel président des regroupements et chauffeurs transporteurs de Touba moom nee na ñii comme coow leen moo leen moo leen taxoon a jóg moom dina dem fa mbaxana doone benn daldi leen fay porter plainte coow li nag mi ngi amoon ci garage yu mu nekkoon xeex bu métti métti seen biir ba sax am na nañu ñoo xam ne am nañ ci jot nañ ci am ay gaañu gaañu